ak soog a yegg sa valise. gisoo dama ko kii non dama ko laxas parce que gars yi dañu bëri ay affaire maanaam <laughs> naka mu naaj. mais booy namm naa la mais noo gisee conception bi rap Galsen après une première yow loolu en tant que rappeur en tant que artiste ban gis-gis nga ci am. waaw naaj sax c'est toujours bien de nga exporter sa li ngay def jëlee ko sa dëkk yóbbu ko feneen xam nga exposer ko ñeneen donc euh, l'organisation n'a pas été facile. affaire yi jaxoon na am na benn instant sax gars yi ñu ngi doon wax dina am wala du am mais affaire yi boo ko gëmee rek nekk si li ngay def xam nga bañ a déglu da ngay sëgg rek bu yàggee li nga ci soxla dina la si fekk quoi donc gars yi ñu ngi yegg si ndànk-ndànk ñun léegi lañu yegg si dëgget yi kii kii nu mu tuddati DS major ñoom ñëpp ñu ngi si yoon bi ñoom Simon tamit ñu ngi ñëw ñoom Moustapha ñu ngi temps ñoom ñooy mujjee yeeg si parce que ñoom ñoo war a yóbbu ñëpp. Eh, coordonné affaire exactement foog ñu coordonné yëpp. et eh, on a eu à déplacer l' ba suba normalement c' était le samedi mais dañ ko déplacer suba justement pour permettre euh, gars yi rectifier aléa yi jotoon am entre temps quoi.